bon soxna si nu mu feeñee nu mu nu mu feeñee donc dafa jékki bopp mu woo ma jooy am benn waay boo xam ne ma ne ko jox ma kooku su ma jëlee kooku foofu expliqué ma ginnaaw Touba Touba Langsar la feeñ mais moom soxna si ci boppam moom bañ koy jël ba mu damay laajte clinique bi ci la benn paa nekk soxna clinique boobu ngay laajte ma laay yóbbu sama soxna sama soxna mu ne la ci kanam oto benn pajero bu ñuul la. nee na benn pajero bu mu demee foofu mu ne ko foofu laay yóbbu soxna bu moo génnee fa la yóbbu soxna si soxna si dal di tugg comme jabaram la nee na jabaram la daf ko yóbbu ci clinique ba soxna si dal di bu mu duggee ñu daw tuuti am beneen jigéen bu nekk ci kanam léegi bu ñu tooyee ba tolloog jigéen bi ci la ko waaj ne ci sama jigéen la moom tam ci clinique ba la jëm kooku ba mu ubbee bunt ba ci la ko daal di pompe nee boobu la gis a xam la nekk waaye oto bi nga xam ne bii Pajero bu ñuul boobu nga xam ne moo ko jëlee ci corniche bi ci rond bi bokkul ak oto ba ko dugal ci benn kër oto ba ko dugal ci benn kër oto boobu nee amul numéro léegi nag bu mu duggee foofu ci la jël ci deretam ñu aspiré ci ba pare léegi nag ñuy werante ñii naan nañ ko rey ñii naan duñ ko rey rey parce que booba léegi ñuy wax borom këram du feebar ak euh, ay doom yu mu bàyyi ñaari doom la bàyyi woon ñaari doom la léegi nag nañ leen ko bàyyi bi ñu koy moom ba su ñu daldi bumax ko teg bët yi bumax ko mu daanu ñu nangu portable bi nangu cheveux naturels bu mu yoroon nangu xaalis bu mu yoroon ak pochette bi ak carte léegi nag ci la commencé di daw di daw teew bu ñëwee ba jib ay nit ñoom ñu gis ko tànku nen yooyu muy def ak yooyu ñooy tam daw ñu teg ko rab dof daal ba finalement benn xale bu góor daal moo ko mujjee moo mujjee taxaw ba expliqué kooku xale bu góor bi dal di woo ma téléphone ay dix heures yooyu la dix heures moyen la vingt deux heures moyen démb ci guddi